Bellingham waabale na entraînement bi doon am fële tey ca Madrid Rafinha kenn jaayatu ko déggoo loolu la bëgg gaa yeneen information yi ci muddangaanu ginnaaw yëgle bu am njariñ bi yëgle bi leen la rek di ki nga xam ne mooy Serigne Abdoul Assar borom Mbour di champion nag ci li nga xam ne mooy xeetu yi nga xam ne ay faj la waaye nag li mu gën a doon jàmbaar mooy asraar maanaam mbirum seet ak mbirum biddiw nga xam ne bu la ko jàppalee yow mii di ma déglu ci numéro téléphone yi benn par benn dana ko teqantal nga xam ni lépp loo xam ni euh, jëm na ci maanaam wàllu seet lépp loo bëgg a xam ci kàttanu suñu borom la yàlla maye woon bu fekkente ni fuqar ñëw ko ci moom bu ngeen jëflantee doo ko rëccu benn yoon ñaan nag ci wàllu cat nga xam ne ak ay sangat yoo xam ni dana ko def dimanche bu ci ne cangat yi nag gars yi dana koy rang waaye lim bi may jël wala lim bu muy jël mooy méngoog li nga xam ne daanaka mooy temps bi maanaam jël lépp loo xam ne mënu koo def te képp ku mu xool xam ne bu jëflante yow du sotti moom mii di Serigne Abdou Asrar du ko def kon na ko gaa yi dem ah, saddam loo kon li muy def man na ko kaar macha allah te jàmbaar la ah, ci li nga xam ni moom lay def beneen bi nga xam ne nag tey jii xew na muy xeetu newataan yi nga xam ne gone yaa ngi football ci ab coupe nag bu la jàppalee coupe mën na la koo andil feebaru sëy tamit comme ni ko gaa yi waxee am nañu bari ñoo xam ne nag dàmbar ñi def leen a jafe maanaam di paraj paraj yi ci kawlaal bi bu ngeen jëflantee bu ngeen ca jógee yaay raw fasu naaru góor woo xam ni amuti fi rek niir moo téléphone yaa ngoogu sama waajaa ngi mbur ngeen gaaw def seeni appel jokkoo moom lépp tawféex ci moom ñu continuer information wér te ma nga ne ni ñu leen ko waxee ci bopp xibaar yi dañu koy commencé ak Real Madrid nga xam ne daanaka footballkat bi nekk ca Santos nga xam ni moom moomee di gone gi mi ngi war a jar toll ci fukki million d'euros ak juróom jàpp ñaar fukki million d'euros juróom yi nga xam ne moom mii di Santos ak agent ba doon nañ ko laaj ci koppar te it koppar yee wax nañ ko Real Madrid moom agent bi moo ko xamal gone merengue yi ni leen fintoon ni gone googee buñ ko bëggee ak képp ku mu intéressé man ngaa teg ci taabal ji loolee Real Madrid nag daanaka fi mu toll nii footballkat yi nekk fële ca Brésil bëgg na leen lool ndax daanaka li ñu bëgg ci wàllu football ñoom Real Madrid déggoon nañ ci loole moo tax daanaka fépp fu ñuy bëggee euh, footballkat attaquant wala militaire dana ñuy coytu gone yooyee teyit moo tax lu fa mën di fële Real Madrid day taxaw ndax gone yi club bii di Real Madrid moo leen saf waa Brésil moo tax la ci ay Brésiliens ña fa jaar ña fay bëgg a ñëw ak ña fa soqi ko bari nan lool car macha allah xam ngeen fa Vinicius Junior Eder Militão xam fa Rodrigo Gonçalves tayit xam fa Roberto Carlos mi nga xam ne jaar na fa Ronaldo ñoom ñëpp daanaka Real foofee mooy seenu club. ba tey tamit bu ñu continuer ci information yi directeur euh, euh, bu FC Barcelone ci wàllu football maanaam Deco ñu naan ko directeur li mu xamle ci kii di départ kii di Rafinha loolee daanaka fi mu toll nii bu fekkoonte ne maanaam ab taw la siwet na ndax bëgg na gone gi nag gën a yokk dooleem gën a progresser fële ca FC Barcelone bu ko defee ñu mën koo téye foofee nga xam ne mooy Barcelone mi nga xam ni nekkatu fa am dénkaane waaye dafaa nekk koo xam ne dañu bëgg mu nekk guy gu fa sax dàkk information boobee ñi ngi ko jëlee ci Diario Sport xam ngeen ci journal boo xam ne ñi koy may nopp bari na ndax waxkatub dëgg la loole kon danañ ci man di duut baaraam Rafinha nag jàpp naa ni li mu war a def ca Barcelone xaaj ba xaajaat ba defagu ko moo tax gën a yi bëgg a tàyyi ci moom waaye entraîné na tey ji tàggatu gi ci suba gi cuuy euh, tombeek alxames euh, nga xam ni moom mii di Jude Bellingham entraînement ba mu def nag ñëpp ànd nañ ci ne entraînement boobee taxaw na ci normal tey dox na euh, nga xam ni li mu manqué woon lépp andiwaat na ko kon confiance dellu na ci moom Jude Bellingham ñi koy laaj bis bu ne ci commentaire yi El Hadj Malick wala Tico laaj lu baree bari moom moom moomee dellusiwaat na te incha allahu ragal naa ne bu fekkente ni bokkul ci groupe bi war a football ci weekend bi incha allahu rabbi bu àndeek ak dogalu bareem bi yeneen match la di ñëw moom dana ca bokk loolee amul am xiinum xaana xiinum xaana gi Sénégal amoon ba duur ab recours di wane ni dafa bëgg maanaam ñu foqar ne victoire boobee ca équipe bu France ndax jàpp nañ ni dafa am footballkat boo xam ni ma nga dëkk fële ca Niger maanaam di Youssoufou nga xam ne Youssoufou nga xam ne moom moomee dañu jàppoon ni ay jafe-jafe la am ci maanaam football ci ñaari dëkk te loolee compétition bi da koy tere bu nu sukkandikoo ci équipe dip journal dip télévision bu nekk fële ci réewum France ak RMC Sport xam la na ni France ci ab roq gone uh, FIFA yi wax nañ leen ni loole gars yi bëgg mënatula ne na seen xel dal ni ñoom ñooy football uh, match yi ñu dëgg mën Real Madrid mi ngi préparé la quinze decembre xam nga ni foofee lu gën a bari day def ay reer ak i njoganal yoo xam ni day delloo njukkal football kat ya fay ne ak i staff loole nag di nekk événement fële ca Madrid loole na ci xel dal dana amaat ren ji bu ànd dogalu borom bi kon da ko ñëpp bàyyi xel merengue yi ñu ngi koy waajal président ba tamit ma nga coppati ak waajtaay ak weeramu yu rëy di xaar programme boobee bu ko defee mu delloo njukkal ay football katam ndax mi yeyoo nañ ko lool te it loolee dana am solo ci équipe bi la di Real Madrid gars yi gërëm naa leen sant leen abonnement yi bu leen ci des ginnaaw te dee leen wéy di ko def ndax abonement yooyu dana tax lépp lu ñu dugal ngeen mën ko am merengue yi catalan yi ñëpp maa ngi leen di bëgg bu baax.